c'est très simple mooy débat du jour wax nañ leen ne fii ba campagne bi di jeex bés bu ne expert dina ñëw gindi sénégalais yi ci waaw ak déet ak abstinence ban njëriñ lay am expert ak xam-xamam ma ngay tojaat li nga xam ne moom mooy ëpp bopp sénégalais yi ñii ñu ngi cay waxtaan amatul leneen lu dul débat bi ci réew mi ñu seeti expert. expert dëgër fit expert dikër dikër. jërëjëf jërëjëf euh, dëkk bi commencé na euh, neex lu tax mu oui commencé na neex parce que lu tax mu commencé neex euh, non seulement le président Macky Sall tax na journaliste am na nañu débat du jour au lendemain journal Walf Quotidien Observateur La Tribune journal populaire Évidence Sud Quotidien Rewmi Direct Info am nañu lu ñu wax source source d'information mooy maanaam am nga loo jaay te boo xoolee fan yëpp journaux yëpp macha allah bu ku ci tiré exemplaire li ngay am ci retour du bëri mooy wane nag débat bi tax na mu suqali li nga xam ne mooy comme koomu journaliste yi loolu kon baax na ci ñun ñi nga xam ne ñooy expert en consultant ci li nga xam ne mooy débat politique ñun tamit suñu ay conférence ñu ngi ci ko démb ñu ngi doon waxtaan ci waaw ak déet oui ak non démb ci nañu nekkoon tey nekk ci maanaam est-ce que l'argent xaalis mën na tax nit ñi voter est-ce que nit koo xam ne da nga am ginnaaw mën na tax nit ñi voter est-ce que sénégalais yi ci moment bi ñu toll xaalis mën na leen jënd ba ñu voter wala est-ce que kenn koo xam ne dafa am tur mun na taxaw ne man am naa mbooloo loolu ci la ñuy waxtaan tey ak li nga xam ne mooy abstinence lu tax mu am njëriñ parce que il faut nga fexe ba ci ay débat gindi sénégalais yi ñu gindeeku moo gën nga génne sa poche xaalis di ko jox parce que doo am résultat parce que xaalis bi nit ki mun na ko récupérer ba pare jënd nga conscience am mais munoo jënd li nga xam ne moom mooy am ndax buy dugg du la woo ne la bii laa voté am na ñoo xam ne dañuy génn na la non laa voté génn la wii am ñuy génn wii ne la wii non la voté jox la contraire bi léegi est-ce que xam nga ne le président Macky Sall ci ban situation la nekk la politique bi nga xam ne moo am mooy campagne bi waa APR ak opposition bi ñaari campagne la gis ngeen la président Youssou Ndour était reçu te dafa d'accord pour ànd ak Macky Sall ci waaw bi Youssou Ndour leader d'opinion ñoom tamit ne pare nañu pour génne singal dem ci nom bi Y'en a marre Youssou Ndour deux clans maintenant kii force la ñii force la est-ce que way mën na tax nit voté est-ce que tamit mouvement way tamit mën na tax nit ñi voté loolu du problème bi le problème bi mooy li nekk ci réforme yi dangeen jàpp ne élection yi rek la ci mandat bi mais am na yeneen yoo xam ne ñu ngi ci biir te nit ñi saytuwuñu ko te boo xasee boo wote wii ànd nga ci li nga xam ne moo nekk ci yeneen yi nga xam ne dafa ci yoon mais na président Macky sàll wax yeneen réforme yi su ko defee ay ñiy dem ci plateau yi di débat xam leen moo ci tegu ak lan la ak lan xeex bi ak xulo bi du nekk ci wax waxeet il a trahi palor de non nekkul foofu le débat se trouve nan nañu fexee ak lan nañuy utee situation bi nga xam ne moo am actuellement mooy bu fekkee ne wax naa leen ko la non moom moo gagné le président Macky Sall dafay am problème mu légitimité parce que opposition bi dina wane ne li nga bëgg duñ la ko may te boo defee benn mandat ñoom bu ñu regroupé au sein boole seen doole bu ñu ko fi jëlee le nom va cartonner wii bi bu fekkee ne dafa gañe la non wii bi dafay toog mais est-ce que xam nga ne Macky Sall bu gagné wii élection day am waa mais bu élection amee foofu la problème bi nekk opposition day fexe ba gagné pour jël wii bi def ko cinq ans war a opposition Macky day conserver pour defaat beneen mandat kon góorgóorlu bi ngi nekk ci diggante après référendum monsieur l'expert on nous a appris à la euh, commence par le droit de l'homme et la dolécratie commence par les duma de l'homme quelle est la différence entre la démocratie et la dolécratie dafa nekk ci éthique ak déontologie maanaam dangay ngay yemale égalité respecter droit de l'homme ak ak wareefu doomu aadama bi waaye lépp ngi nekk ci li nga xam ne moom mooy sa gis-gis ak ni nga koy doxalee am na ñoo xam ne tey lu tax ñuy voté noo mooy kàddu gi loolu rek moo leen déranger le président Macky Sall mënutul dellusiwaat ci kàddoom parce que joxe na ba pare moyens yi dem na ñu ngi campagne mais attention dafa am benn secret bu sénégalais yi xoolul ci biir benn secret bu ndaw bu nekk ci diggante wii et non bu fekkee ne la déglu leen ma bu fekkee ne non bi moom moo gañee Macky Sall dafay def mandat bu sept ans. ak mandat bi muy 14 ans te dañu waxoon ne mandat 5 ans ñaari yoon 10 ans la Macky sàll li mu bëggoon dana ko am ba mu weesu encore ñaari at yu tegal ñaari at muy 4 ans 5 plus 5 égale 10 plus 4 égale 7 plus 7 égale ñaari 7 boo ko boolee mu jox la 5 plus 5 mu jox la kon Macky Sall 10 doon ut ñu wis ko 4 muy 14 bu fekkee dafa double mandat le président Macky Sall oui ak non da koy arrangé su amee oui il va faire 7 plus cinq égale ñaata. kon il devait demander dix ñu wis ko 2. qui perd c'est l'opposition parce que Macky Sall amaan na 2 yoo xam ne dañ ko buñaa bu sàmmoon kàddoom ci 5 ans yi 10 ans lay def ci kaw mu gagné deuxième mandat bi. opposition bu fekkee ne ñoom ñoo gagné par le du tax Macky Sall wàcc de. prochaine élection bu ñu góor góorgóorloo pousse Macky Sall ñoom sept ans la ñuy def mais bu Macky Sall toogee day defaat sept ans muy quatorze ku doon ut dix ñu jox la quatorze looy waxati le secret personnel bi nekk ci bii mooy bañ a voter bu fekkee ne loolu mooy gis-gisu opposition bañ a voter du tee loi bi day intervenir parce que boo demul voter ñii voter oui bu ñu doon ut cent am quarante ñi bañ a voté kenn demul président bi li mu buggoon amu ko waaye du côté egg li mandaam te bu ñëwaatee après élection su gañee ci politique am ñàkk bañ a voté bi du amati sens kon xam nga fan la secret bi nekk fexe ba référendum du am bu fekkee ne boycott ñàkk référendum moo ko gën kon le non est oui le oui est non abstinence regret yooyu yëpp dafay regrouper ci benn sein de démocratie attention le président Macky Sall actuellement il doit sortir les moyens pas financiers éthique ak déontologie ak xam-xam fexe ba convaincre sénégalais ci li nga xam ne moom li mu bëgg y a un piège et piège bi ci kanam ngeen koy xam man mii nga xam ne maay expert man rek maa am solution bi tax sénégalais yi bu ñu bëggee noo ma wax leen ko fu ñuy jaar Macky Sall bu bëggee wii moo ko fu ñuy jaar sama numéro téléphone maa ngi koy bind pour waa opposition ak Macky opposition bu ñu ma woowee xaaju guddi fu kenn nekkul maa ñoom ak yàlla nañ ma woo si 77. waaw wara ci 76. waaw wara ci 70 ñetti numéro téléphone yi ñoo am wara ci 33. nga defaat six. fii nga defaat six. fii nga defaat six. fii nga defaat six nga def quarante quarante quarante quarante quarante sept quarante sept quarante sept def huit def huit benn chiffre moo ci manqué suba ma jox leen ko.